jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñu ngi leen di nuyu boo gisee toogaay bi nag xam ngeen ne dañoo invité koo xamante ni daanaan la euh, fondateur écurie Mamindis koo xamante ni def na lu ne ci làmb su ma juumul mën naa ne euh, lutte simple bokk na ci ñi nga xamante ni nii ñu daan jël seen xaalis du ko def ci lutte simple suma nee daan jël seen xaalis di ko def ci lutte simple mooy daan nañ jël seen xaalis di ko jëndee ay lu ñuy fajee nit loo xamante ni ku gaañu kenn joxu ko ko bëgg jàppale xale yi bëgg jàppale mbër yi yàgg na jël alalam di ko def ci làmb ba tax na tey mu jiite écurie Maam Indis duñ ci duñ ci xuus nag dañ koy bàyyi mu nuyoo euh, wax euh, li nga xamante ni def na ko ci làmb et puis bëgg na koo def ci làmb tamit maa ngi lay nuyu. di la fay euh, waa Wassare maa ngi leen di nuyu bon parce que aujourd'hui dafa nekk na benn rencontre boo xamante ni c'était pas du tout préparé mais dañ ci def benn benn partage rek. de de dix à quinze minutes comme ça après dinañ jël bës boo xamante dañuy gën a ubbi waxtaan bi ko ay yaatal ah, voilà donc euh, li nga wax ni moom c'est c'est des choses yoo xamante ni nag moom sénégalais bu nekk war na ko mën a am comportement boobu parce que ñun ay encadreur lañ donc euh, ñun ba ñu créé écurie bi ñu jël ay xale leen di yóbbu ñuy bëre ji donc écurie ñuy bëre ba pare amuñ woon assistance <coughs> amuñ woon assistance médicale mu taxaw nag man dama doon ñëw ak sama boîte pharmacie et que su ma ñëwee mun ma di faj samay mbër bàyyi bàyyi ñeneen ñi voilà donc nag bon après noonu laa def ba collaborer ak waa làmb ji ne leen boo léegi bàyyi leen may may ñëw di ja di leen jàppale si loolu mais loolu c'était c'était vraiment bénévole parce que bon ñun amuñu xaaj ak seen si mbër yi si sportif yi sax la ñuy wax en général parce que ay sportif la ñu te li ñu yëkkati moom mooy fexe ba sénégalais yi au moins doon ay champion d' Afrique doon ay champion du monde parce que ñu créé nañ ay champion d' Afrique donc euh, te loolu li gën gënoon tax moom mooy que ne bu ñu toogee ba gis ne làmb séeréer pratiquement écurie yu séeréer tasoon na ñun ñu dem créé écurie Mamidis Fatick invité nag Fatick waay yëpp mbërëwul Fatick waay yëpp ak Fatick waay yëpp. mu ñëw bokk ci jàpp si ay techniciens ñu nekk jàpp si ñu defal leen benn camp d'entraînement ou presque trois mois et bi làmb ji ubbee ñu bàyyi leen ñu bàyyi leen jox defal leen benn planning ñuy dem di bëre di di ñëw et je pense que at boobu pratiquement 2006 2007 2008 écurie Mamindis bon foog naa doo compter benn ñaar écurie te compter woo ko mais nag xam nga après après nag dafa am benn genre cassure. parce que après jot amatuloon mais xale yi màggoon nañ donc mënoon nañ demal seen bopp donc ñu ne woon nag dañuy noppale ko tuuti comme ça gën a préparé wu nga xamante ne après suñ dellu see gën a organiser mbir mi ba pare détecté waat d'autres talents détecté waat d'autres talents encadré leen donc fexe ba fa ñu tolloon ñu mun a dépasser loolu parce que tey sport dafa dafa avancer moderniser làmb ji tey débat CNG mu mu ngi ñu ngi koy teg débat présidence ak yooyu non moi je je me dis que moderniser làmb ji c'est pas parce que dañu war a changer président CNG c'est parce que à la base nit ci dañoo war a liggéey à la base écurie dañu war a dugal ay techniciens ci biir c'est pas parce que yow ancien mbër nga woon que ne yow da nga war a am écurie et que yow yaa entraîneur donc kooku dafay bloqué dafay ne làmb ki ut écurie am war na mun a jël ay technicien ñoo indi leen même su fekkee waxtaan ak ñoom ñooñu su fekkee ne mën nañ leen ko defal bénévolement ñu def ko te dinañ ko def sax parce que Sénégalais bari naa nit yoo xamante ne am nañ xam-xam lool mais soo leen boolewul du ñu ñëw parce que tamit day am day indi coow te coow baaxul te am na ñoo xamante ne su fekkee ne suñu genre su fekkee ne liggéey rek bon dañuy toog liggéey yor nañ suñu liggéey nañ suñuy projet mais nag jeunesse bi tey ak problème mu gaal yi ñuy wax tey war na mun a tax ba nit ñi ñëpp teg seeni loxo ci débat wu jeunesse bi fexe ba di def ay ay ay ay ay donc tu vois di créer ay ay ay ay ay association yoo xamante ne dinañ ci toog waxtaan ak jeunes yi fexe ba téye leen te dara gënu si gaaw lu dul écurie yi du dul club de judo yi lu dul club de karaté yi donc il faut que sport bi gars yi ñu soññ leen gars yi ñu xëcc leen ñu xam ne fédération yi du rek ne man ci fédération diw laa bokk non non non il faut ñu jóge club yi il faut ñu soññ club yi fexe ba nit yëpp toog xalaat tey xale yi ba pare encadré leen xam nga soo xoolee tey par exemple dama lay jox benn exemple ñu naan sport étude ba pare nag bugg ko teg si football kese te alors que football ñun duñ si tedd football ñu siy tedd benn minorité la mais làmb ji tey bëri na ay xale yoo xam dañuy bàyyi dañuy bàyyi dañuy bàyyi jàng dugg si làmb kooku question boo xamante ne nit dañu war a trouver. Euh, une solution à ça te am na solution am na ay solution parce que ñun ñu ngi ci démarche yooyu et que ñun tey am na benn association boo xamante ne ci bitim réew laa ko laa ko jëlee ñëw nañ te ñun ci lu ci volet boobu la ñu war a liggéey te dinañ ci invité fédération yi dinañ si invité CNG ak CRG yi donc tu vois donc kooku moom mooy li nga xamante ne bëggoon naa leen ko informer tuuti. mais et puis l' de l' écurie Mamindis aussi parce que tey toll na foo xamante ne xam nga yaa ngi may laaj kan mooy tête de liste et tout parce que ba léegi soo xoolee du point de vue organisation dafa dafa des donc tu vois et que aussi ak euh, année bi nga xamante tamit ñoom bëriwuñu mais ils étaient daaw dans une lancée sur une lancée boo xamante ne commencé woon na euh, dellu si mais break bi euh, comment dirais-je silence bi moom jamono bi jamono Covid bi. dafay tax ba ñu gën a mun a organiser wu pour préparer saison bi ñëw. voilà donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di fexe ba euh, waxtaan bi ñu mun ko amaat et puis fexe aussi ba invité sénégalais yi à ce que ñu fekk si ñu si débat bi nga xamante nañ ko posé du yàgg voilà donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. <laughs> yow cest à que li ma la mën a wax rek moom mooy que dinañ si dellu si dinañ jël benn jour boo xamante ne je dinañ préparer benn benn benn rencontre benn feuille de route boo xam ne dañuy toog waxtaan si di ngeen jot dinaa leen jox sama mail et tout ñu ñu échanger si et puis ko su ko defee au moins man dinaa leen confier loolu hmm, ngeen nekk ñi nga xamante ne dañuy njëkk a wax si projet bi. incha gis ngeen kontaan nañ ci yéen. lépp luy doxal làmb rek dañ ko bëgg di di jàllale ci wasaare làmb moo tax li ma ko wax rek làmb wasaare làmb moom làmb rek moo ñu intéressé incha allah dinañ fi gën a ñëw gën koo yaatal ba beneen yoon ëllëg incha allah kontaan naa ci yow bu baax a baax Kaago